ne tudd yàlla moom am na lu ma ci jotoon wax ci njëlbeenu buntu bi lu doy sëkk xanaa nee na ma dolli ci rek baamu yenn ci yaa waxoon ak dolli ci loo xam ne waxuma ko woon bi mu tàmbalee moom wax na ci gannaaw mooy ci hadis qudus yi yonante bi dane saa borom day day wax ne jaam bu nekk lamu jort ci man rek bu dikke lola la fay fekk na jort ci man la ko soob lam jort ci man bu di aw yu aw yu la fay fekk bu de safan bayit safan ba la fay fekk mu ne sama jam nak bu ma tuddu ci xolam ak xelam kon ci secret la may tam mang koy fay di tuddu tudd gu yelloo googa dañu bañ a saxalal yàlla bakkan mbaa xel mbaa xol waaye jëf ju nekk pay ga day xeetoog moom suma sama jaam tuddee nag ci biir mbooloo may danaa ko fay tudd ko ci biir mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo moom ma tuddee man nga ko seet ci téré bi tuddu al hisnul hasin batay ci hisnul hasin hadis bi andi nañ ko fa hadis bi wax ne amul ben sarax bo xam man na gën tuddu yalla dañu waxone tuddu yalla ku ko def ñu fay la ci tuyaabay saraxe mu ne nak amul ben sarax bo nit man na ko saraxé bam gën tuddu yalla hadis bi itam weesoon nañ ko ci gannaaw yonante bi daa waxan ñen ci sahaba yi ne leen ah ndax duma leen wax jëf ji nga xamne ne gën ci mbolam jëf yi gën a sell itam ci mbolam jëf yi fa yalla gën ca gën a mën seen daraja fa yalla gën ci yeen sax ngeen di joxe wurus ba xaliss dem ci yéen ngeen ngeen taseeg noonu yalla yi mu yéefar xex ak ñoom ngeen cawante jeesi ñene ko ah lolu kay moom wax nu ah kay wax nu kay mu ne len lolu day moy tuddi yalla tuddi yalla mo mel a gis ba neena ki gëm yalla te boole ci diko ko day gën na lool ka nga xam ne du dul tudd yàlla gëm na ko waaye du ko tudd jaam bi gëm té du faté boromum di ko tudd ni mu gënee ka gëm yalla waaye du ko tudd mi ngi melni rek misalum kuy dundu ak ku dé ki tudd yalla moy misalum kay dundu ka du tudd yalla moy misalum ka dé addis bi dane aw nit bu jekkee di tudd yàlla faaw rek ay malaaka dañu ñëw wër leen yërmande yàlla wàcc ñoom ba muur leen ak dal daldi wàcc ñoom maanaam ñi daldi ame rek ak dal teyit yàlla da di faye tudd leen ci péyam bu sell boobee fa gaayam yu sell wooyee ndax fay leen toog gañ toog di ko fàttalikoo ko tudd alis ba nee na jëpp jëf ju doomi aadamay jëf ndax bëgg mucc ci mbugalum yàlla xamal ne tudd yàlla moo ci gën mbaa amu ca lenn lu ko ca gën alis boobu dane bu ñaar nit toogoon kee yore ab xaalis di ko joxe ngir yàlla kee moom toog di tudd yàlla ko it ka toog di tudd yàlla moo gën kookee toog bi joxe ab xaalis addis bii daa wax ne su ngeen rombatee bëri àjjana na ngeen ca for mooy na ngeen ci xéewlu bu baax a baax ñu ne ko waaw yonente bi lan mooy bëri àjjana mu ne géew yi tudd yàlla yi maanaam aw nit bu ñu tasee géew di tudd yàlla xamal ne loolee daa bokk ci bëri àjjana li ñuy wax jardin àjjana kon nak ku rombati ñu tuddi yalla rek te ñu ci dara lu ay na nga fa jaar fexe ba bokk ca xewlu ci xewal googee addis bi da wax ne doomi aadama bo gis rek yalla da def ci xolam ñaari bo malaka mo cey nekk di ko ci lu bax ak beneen nee boo xam ne seytaane moo cay nekk di ko xiirtal ci lu bon su jaam bi dee tudd yàlla di ko fàttaliku nag seytaane sa day ragal deltu gannaaw daw làqu waaye nag bu fekkee jaam bi du tudd yàlla da koy faral a fàtte seytaane day am ci moom aw yoon fi saasa jël ab ñoxam teg ko ca xolam di jax-jaxi rek di ko jëmale ci lu baaxut addis bi moom daa wax ne julle julik suba ci mbolo tok nak di tuddu yalla ba jant bi fenk ba nafila dagan waxtu nafila dagan nak moy bu jant bi fenke ba boko de xol la mu yëkkati ku mat ñetti meter ci sa xolu bët do suba nak ci mbolo tok nga doon julle di tuddu yalla di tuddu yalla ba jant bi fenk ba ku tutal nonu nga julli ñaar rak tek ca day mel ni am nga yoolub aj ak xumra yu mat sëkk yu mat sëkk yu sëkk dafa baamu baat boobu ndax fetli ko wane ne amee na tuyaabay aj xumra yoo xam ne yu mat sëkk lay doon am na bay nett li bu ne ku def loolu bu dee wañar bi ko day yóbbaale yoolub aj xumra waaye wax moom wenn la ko toog fi nit ñoo xam ne dañoo sàggan lool ci tudd yàlla yow na nga faral di tudd rek ci seen biir day mel ne mbooloo mu àndoon di xare ji ci yoonu yàlla ñu daw nag am kenn ku taxaw moom muñ bañ a daw kay tudd yàlla ci biir ñooñee sàggan ca tudd yàlla mu ngi mel ne kookee dër di xeex ci yoonu yàlla te ñam àndalo ñoom daw hadis boobu dane aw nit buñ toogee ci jotaay ba jóg tasaaroo te jataay boobee tudduñu fa yàlla julluñu fa ci yonante bi sallallahu alayhi day mel ne dañoo bokkoon toog tiim meddum mbaam mel ne kon buñ jógee ci jataay ba kenn ku ne jeexit ju bono bon fay jële te mu ne jataay boobee faaw bis pencee daañu ko rëccu daañu rëcc lu teewoon bañ toogee ci jotaay boobee ñu tudd yàlla te julli ca yonante ba addis boobu dane ñi gën ci jaami yàlla yi mooy ñi nga xam ne dañuy jéem a xam waxtu ya ñu war a jaamoo yàlla ak yi gën a sopp ko ci jaamu yàlla dañ koy jéem xam ba di ko tolloo la ci doxub jant bi ak doxub weer bi ak fekkuk biddi ak seenuk suux ak yeneen tegtal yi nga xam ne mënees na caa xàmmee waxtu ya ñuy farlu ci sàmmoonteeg waxtu ya ñuy jaamu yàlla daal ba mu jaral leen di ci wut ay tegtal yu ñu koy wóorloo moo xam dañ koy tegtaloo ci jant bi wala ci weer wi mbaa ci fekkuk biddi mbaa ak suuxam mbaa yeneen tegtal yi ñooñu daal ñoo gën ci jaami yàlla yi hadis boobu dane waa ajana bu ñu demee ba ci biir ajana la réccu daal mooy waxtu wu ñu bàyyi woon bañ nekkee àdduna ba mu jàll te duñu ca yàlla maanaam bu ñu demee ba biir ajana ba gis tudd yàlla la cay payam foofa duñu rëcc looy daal waxtu wu ñu bàyyi woon rek bañ nekkee àdduna mu jàll te tudduñu ca woon yàlla hadis boobu dane kenn ku ne ci yéen nay bari la tudd yàlla ba mujj ku ko gis da ngay wax ne kii daal dafa tàggoog sagoom jamono yi jaam xewee goreel ab jaam daa bokkoon ci bari tuyaaba lool mu ne nag gannaaw bu ma julee suba ma toog ànd ku nit nu bokk di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma gënal ma aman ñeenti jaam ñi bokk ci sëti Ismaayil goreel leen ngir yàlla la tuyaabay goreel ju rëy tudd yàlla gii moo ma ko gënal gannaaw takkusaan it noonu la mel dane gannaaw takkusaan ma toog ànd ak aw nit mu bokk di tudd yàlla ba jant bi so moo ma gënal am ñeenti jaam ñu bokk ci sëti Ismaayil goreel leen tudd yàlla googu moo ma gënal goreel googu ak la goreel gay bari bari tuyaaba addis bi dane yàlla mas naa digal yonante yàlla yaxya alayhi salaam ne ko juróomi baat yi day digal ko ñi ma la yónni te mooy banu israil tudd yàlla nag daa bokkoon ci juróomi baat ñooñee waxul nag ñeenti baat ñi ci des loolu rek la yàlla ni yahya ne ko digal ko bani israil te lu juróomi baat benn ba moo doon tudd yàlla mu ne itam tudd yàlla ni nga xam ne moom lay aare nit ci seytaane ba du ko mënal dara dara mu ngi mel ne waajoo xam ne daal ay noonam dañoo jóg di xañ ab tànkam gaaw lool bëgg koo jàpp waaye ba ñëwee rek ñu fekk ko ci kaaraange loo xam ne mënu si koo bëtt mukk àgg ca moom seytaane it noonu rek bari la tudd yàlla mooy tax nga mucc ca ba du am benn bunt bu mën a jaare ci yow